alhamdulillah no fas yéene dellu waat jokko waat ci sunu bindu démb bi insha taala démb noo ngi daloon suuratul qalam yemoon ci laaya ci laaya fukk ak juróom benn kon tey insha allah ñu war laaya fukk ak juróom ñaar fa sunu borom tabaraka wa taala di waxee naan inna balawnaahum kama balawnaa asxaaba aljanna asxaaba aljannati id aqsamuu la yasrimunnaha musbixiin yàlla mu ni inna balawnaahum mi ngi joxe ab misaal ab misaal lay joxe misaal mi nañ ko déglu bu baax ndax am na solo yàlla nee na inna nekk ñun yàlla balawnaahum nattu nañu leen nattu nañu leen examen nañu leen kama balawnaa comme ni nga xamee ni noon lañu nattoo asxaabal jannati waa borom tool ba borom tool ba id mooy jamono ja nga xamee ni aqsamu id aqsamu jamono ba nga xamee ni dogu nañ jamono ba nga xamee ni waat nañ waat nañ ni la yasrimunnaha danañu góob tool bi danañu watt meññentu ya nekk ca tool ba yépp musbixiin bu nu xëyee suba teel ca teel teel wala yastathnuun te duñu ñu ca settee dara waaleykum salaam duñu ca settee dara maanaam duñu ca bàyyi dara dara dara waxuñu sax insha allah waxuñu sax bu neexee yàlla maanaam daa am genn góor goo xam ne daa amoonub tool tool boobee mu ca daan bay waaye nag daan ca dimbalee lu mu amee ca tool ba rek da ci daan dindi ab paar boo xam ne da ko daan dimbalee way néew ji doole maanaam tool bi sax ñetti xaaj la ko xaaj xaaj bu njëkk bi da koy jagleel ñu ñàkk ñi miskin yi la koy jagleel di leen ca dimbale xaaj ba ca des mu jagleel ko ak njabootu boppam xaaj ba ca des mu di ko garde ngir di ca mën a jiw uti jiw ak yu mel noona di ca yokkuwaat góor ga nag ba mu demee ba génn àdduna ak njaboot gi mu fi bàyyi ñoom nag ñu daal waxtaan ci seen biir waat ni ñun daal bu ñu xëyee nañ dem ca tool ba bu ñu àggee góob tool bi ba mu jeex takk takk takk duñu ca bàyyi dara duñ ci dimbale benn miskin duñ ci dimbale kenn nañu jël lépp waaye nag buñ koy def nañu ko def ak suba teel suba cooy nga xam ne kenn duñu gis ba duñu topp kenn duñu gis ba duñu ñaan kenn duñu gis ba duñu sonal wala munuy fat nañu fajaru teel moo tax ñu ne id aqsamu yàlla mu ne id aqsamu jamono ba nga xamee ne waat nañ la yasrimunnaha ñu danañu góob tool ba danañu ko dagg la ca nekk lépp daañ ko wat daanu ko raas musbixiin suba teel nag lañ koy def nañu xëy suba teel defi ko wala yastasnoon waaye ñoom day waxuñu sax insha waxuñu sax bu neexee yàlla waaye dañoo wax rek daal di teg seeni mbir ba noppi nag de bu ñuy bàyyi dara ca tool ba ah bi loolu amee nag yàlla suñu borom bi daat leen di nattu yàlla mu ni fa toofa fa toofa wër na alayha ca tool ba taifun ab wërkat boo xam ne min rabbika mi ngi jóge ci sa borom wahum te ñoom naaimuun ña ngay nelaw booba jamono maanaam guddi jot yàlla yebal na benn waay boo xam ne ci moom la jóge mu bàyyi ba guddi jot mu daal di yoxoosu dem ca tool ba ba mu demee ca tool ba nag watt raas na tool ba ba tool ba jeex takk takk takk bàyyiwu ca dara dara dara maanaam ba guddi jotee gaaña di nelaw fekk préparé nañ li ñu préparé ne bu ñu xëyee suba cooy daañ dem raasi tool ba ca guddi ga am na ku jóg boo ko ci ñoom nag keneen la koo xam ne feneen la bokk daal di yoxoo su jaar ca tool ba watt tool ba bam jeex tàkk bàyyiwu ca dara moo tax yàlla mu ne fa asbaxat mu daal di mujji moom tool ba kasariim mel na guddi gu lëndëm tris dara desatu fa lépp jeex na kassariim ba amee nag fatanaa daw ñu daal di woowante maanaam ñu préparé woon bu ñu xëyee danañu dem raasi tool ba mooy njabootu paa bi nee na fatanaa daw ñu daal di wootante ca waxtu woon joxante woon ca suba cuuy ni bu jotee nu wootante ba suba jotee teel ñu daal di taxaw wootante ey diw ey diw ey diw wootante ba ñoom ñépp daal ñoo dajaloo ñu ne ay ca leen dajaloo nañ ñu ne nag anir du ani mooy ey urdu nee na xëy leen urdu aca xëy leen ala xarfikum jëm ca seen jëm ca seen tool ba in kuntum su fekke nekk ngeen saarimiin di dogu ci raas tool bi aca ñëw leen ñu dem aneex du mooy xëy leen fajaru leen teelu leen ala xarfikum jëm ca seen tool ba in kuntum su fekkee nekk ngeen saarimiin di dogu ci dagg tool bi bu dee dogu ngeen ci góob tool bi dogu ngeen ci raas tool bi dogu ngeen ci ñu wattu tool bi aca kon nañu leen dem nañu leen dem ca tool ba ñu raasi ko nañu leen dem amatul xaar amatul xaar léegi nag fan tolaqu ñu daa di bëb bu dem ñu daa bu dem gaawantu nag waxum te ñoom yataxaafatuun ña ngay ña ngay nëbbu maanaam bu ñu dem di dem ca tool ba di ko watti ñu ngi nëbbatu bëgguñu kenn yëg leen bu ñu wax ndànk lañu wax bu ñu doxit ndànk lañu dox jaar ca gannaaw dëkk ba làqatu pour mën a dem raasi tool ba ba mu jeex te kenn du leen yëg fantalaqu ñu daal di dëgg dem gaawantu wahum te ñoom yataxaafatuuna ña ngay làqatu di nëbbatu ngir benn miskin bu mu leen yëg ndax bu leen miskin yi yëgee ni ña ngay dem raasi tool ba dañ leen di topp pour ñaan leen ca dañ leen di topp pour sàkku ca ndimbal te ñoom bëgg ñu dimbale kenn moo tax ba ñu dem dañuy làqatu di nëbbatu wahum yataxaafatoon lan lañuy làqatu ak lu ñu nëbbu an laa yadxulannaha ba kenn bu mu dugg ba kenn bu mu dugg al yawma tey aleykum ci yéen miskiin benn miskiin ba bu kenn mën a dugg ci ñoom ci miskiin yi bu kenn mën dugg ci ñoom pour di leen ñaan ca tool ba kon ñoom ñu soxla lañ daa mel de maanaam seen baay amoon nag tool tool ba baay ja daan ci masalan tooli màngo la ah wala tooli resin wala moo xam tool tàndarma la wala lu mën a doon moo xam sax tool yi dugub la saa bu seen bàyyi daan raas ba àggal da koy xaaj ñetti xaaj xaaj bi mu yóbbul ko njaboot ga xaaj bee mu jox ko miskiin yi ñu dund ca dimbale leen ko xaaj bee mu denc ca lu mën a defee jiw ëllëg ba bàyyi dee ñoom ñëpp ñu làqatu fajar teel dem ngir raasi tool ba ñu fexe leen ba bu benn miskiin dugg ci tool bi fexe leen bu ci may benn miskin bu ci may kenn bu leen kon ñoom daa mel na ñoom ñoom ñu soxor lañ de ah ñoom de tawarkalla tawarkalla an laa yadxulannaha al yawma alaykum miskin ah léegi nag yàlla mu ni wa xadaw wa xadaw ñu daadi xëy dem ala cik fuuklu maanaam cik wattandiku cik moytandiku qaadiriin ñoom day ñu jàpp ni man nañ mën nañoo def li ñu bëgg a def te kenn du leen yëg mën nañoo àgg watt tool bi ba bi jeex te kenn du leen yëg ña ngay dem di làqatu di nëbbatu di moytu nit ñu gis leen ñu yaakaar ne mën nañoo def li ñu bëgg def te kenn du leen ci yëg ba ñu demee nag ba jub tool ba falammaa ra'awhaa bañ demee ba gis tool ba bul fàttali kat ba ñu am na ko demoon raasi tool ba ca guddi de bu ko fàttali léegi nag falammaa ra'awhaa ba ñu demee ba seen tool ba ba gis ko xoolu wax nañ inna nit ñun la bolluun ñun kat dañoo réer de dañoo sànko de ñun leer du tool ba de est ce que ñun jaawale wuñ yoon yi est ce que jaawale wuñ tool bi parce que tool ba bañ koy gis démb ca ngoon tool baa ngi naat bari lool tuwarkalla tuwarkalla ñu préparé li ñu préparé war a xëy dem raasi tool ba benn miskin bu leen yëg ñu xëy dem ba seen tool ba tool ba jeex takk dara néew leen dem tëris ñoom ñu ne ah ñun dañoo réer lee ñun jaaruñ ci yoon wa taxaw leen ñépp leen ñëpp taxaw ñu ne lu xew xool leen ñu xool gis tool ba dara nekku ca doom desu ca garab ya ñu ne kon yéen da ngeen a jaawale fii du tool yi ndax ne dem ci gon bàyyi wuñ tool bi nii lii du tool bi de ñuy taxaw di xool di wiir wiiri naan ah tool bi la de lii lii de tool bi la bañ ba xam ni tool ba la ñu daal di wax ni ah bal la fi nekk ndax nu ñun maxruumuuna dañ ñoo xañ la fa nekk daal mooy tool baa ngi nii moom mooy tool bi waaye nag am na ko fi jaar jël na tool bët raas na tool bi ba mu jeex lii mooy tool bi waaye nag dañ koo xañ am na ko fi jaar am na ku ñu gannaawu waaw ne lu xew ba ñu xamee ni loolu la noonu la demee nag fekk am na koo xam ni nekkoon na ca ñoom moo ci ëppoonum xel moo rax yàlla mu ne qaala wax na awsatuhum ka ca gën a am xel te gën ca ca ñoom ndax mbooloo mi ñu tegee din ni kat dañuy dem raasi tool ba duñ ci dimbale kenn ñoom ñëpp mën nañ caa bañ a d'accord am na ci koo xam ne moom mën na caa bañ a d'accord naan ah te noo def li suñ bàyyi daan def rek te ñoo déem gaa yi rek waaye nag bu ko waxee it gaa ko faale ndax mbooloo mi bari na te moom kenn la kenn du ko faale ay waxam du compte léegi mu ade ade ànd ak ñoom dem bañ demee ba seen tool ba tool ba jeex tàkk lépp ñu raas ko waaja daal di wax ni leen yàlla mu ne xaala wax na aw satahum ki ëpp xel ci ñoom te gën caa maandu mu ni leen a alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon lawlaa tusabbixoon tee ngeen sant yàlla tee ngeen sàbbal yàlla tool bi leen yàlla jox seen bàyyi ko moomoon daan ci dimbale tee ngeen cee dimbale way néew ju doole yi mooy ak sant yàlla ci tool bi te ngeen cee def lu baax te ngeen cee dimbale moo gën waxoon naa leen ko di ngeen lànk bañ ah man de waxoon naa leen ko wax dëgg yàlla alam aqul lakum lawaa tusabbixuun xanaa waxuma leen woon ngeen sant yàlla ci tool bi ngeen jël ci àqi àqi masaakin yi ngeen jox leen ci àqi ñu ngeen ci war a dimbale ngeen dimbale leen ci man de waxoon naa leen ko ba leen waa waxee loolu nag ñu xam ne ay la yéwén loolu la ñu waroon def ñu daal di dellu siwaat ci seen bopp nag ne ah xaaloo ñu daal di wax ne subhaana rabbina ay waaye léegi day noo sant yàlla kon léegi day yàlla mooy ku màgg ki yàlla ba mooy ku baax ki innaa ni dégg nga subhaana rabbina innaa ni ki ñun kun naa nekkoon nañ zaalimina daan tooñ zaalimina di ay tooñkat mooy li ma la waxoon keroog rek koo dégg mu naan jërëjëfe waa ji daa nekk ci jàmm waaye bu jafe-jafe amee rek mu ni cëy yàlla gis nga bu ñu gis tool bi tool bi ñu watt ko ba mu jeex dara nekk fa lan la ñu wax ah subhaana rabbil ah cee yàlla tabarkalla moom day ah cee yàlla xam nga démb ba tool di naat di baax ba ñu waxtaanee ci seen biir dañoo ne bu ñu xëyee nañu watt tool bi fexe leen nag bu leen ko wax benn miskin bu ngeen dem bu leen kenn yëg kon ñoom ñu ngi làqatoo fas yéene jël seen def seen poos waaye bañ àggee tool jeex tàkk lan lañ wax ah cee yàlla. moo tax koo dégg mu naan la ci yàlla xamal ni xamal ni musiba ko dal laaj ko lu xew waaw kenn du nekk ci bànneex naan ci yàlla tabarkalla ah waaye nag ñoom dañoo yéex a sant yàlla bu doon ba tool ba di naat di normal di baax lañ santoon yàlla ni alhamdulillah ñoo ngi sant yàlla léegi nag buñ wattee tool bi ba noppi nañ ci may miskin yi as as toot konoon dee loolu ak sant yàlla waa nag ñoom santuñu yàlla santuñu yàlla ba gaa ñuy ramassé toll ñu naan alhamdulilah ah sant yàlla day fekk na weesu na wax dëgg yàlla mi ngi mel ne que waa nga xam ni daa amoon mbaamam waa ji daa am mbaam nettali bu siiw la waaw damay dellu si seen xel yi waa ji bi mu amee mbaam mi ñëw ci soxna si ne ko ah soxna si man de bu ma xëyee mbaam mi dama koy jaay. danga koy jaay de soxna si ne ko waaw waaw bu neexee yàlla waaj ne ko ah bu neexee yàlla jëru ko mbaam maa ngi maa ko moom takk naa ko teg sama kër xëy dem marché jaay ko jël sama xaalis lu ci jaay bu neexee yàlla loolu amul neexee yàlla bi neexee yàlla naka yàlla damay jaay mbaam mi ah waa ji xëy dem ca gannaaw di tekki mbaam mi fekk ñu sàcc mbaam mooy lu dal waa tool bi de ñu sàcc mbaam ma ñu ci soxna si ne ko ah soxna si sàcc nañ mbaam ma de incha allah <laughs> incha allah weesu na de sàcc nañ mbaam ma de incha allah xanaa beneen yoon ma jéem a lijjanti nu ma jëndee mbaam incha allah incha baax na waaye nag da nga koy wax balaa yëf yi di xew waaw tabarkalla loolu moo dal waa tool bi ba demee ba gis ñu raas tool ba nag ñu ne ah subhaana rabbina inna kunna zalimin ba amee nag fa aqbala fa aqbala mu daal di jublu baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ca ña maanaam ñii ñëw nañ ci ñee yetalaawa muuna ñuy ñuy yeddante ñuy yeddante nag maanaam ca lañ waxoon kii naan lépp ak yow la yow mi yaa waxoon ne nañ dagg tool bi buñ ci may miskin lépp yaa ñu ko teg kenn ko ah man la yow kay yaa ko wax ah yow ba ma ko waxee yaa ci d'accord bi waaye sa waay ñun ñëpp moo yettalaawa moo ne ñu yeddante nag naan ah yow yaa teg affaire bi yaa ñu yàqal mbir mi waaw boo meloon ni suñu bàyyi xam nga ñu dal yettalaawa moo ne ñu yeddante bi amee nag ñoom ñëpp xam nañu nag problème am na ñoom ñépp juum nañ xaaloo ñu daal di wax ni xaaloo ñu daal di wax ni yaa waylanaa ay ñun day ñun de ñun ñun ñun ñun doy nañ doy nañ waar ñun de toskore nañ jéggi nañu dayoo ñun ñii doy nañ waar de yaa waylanaa inna naa niki ñun day nekkoon nañ inna niki ñun kunna nekkoon nañ xooxiina di jéggi dayo nekkoon nañ ñu jéggi dayoo nekkoon nañ ñu jéggi dayoo ci suñu mbir mi maanaam liñ naroon a def buñ ko defoon kon day bonoon nañ lool ndax tool bi nim naate woon nim tollu ñu naroon ko watt lekk lépp te duñ ci may miskin yi benn doom non loolu suñ ko defoon doy nañ waar suñ ko defoon jéggi nañu dayoo ci mbon dégg nga ko inna kunna taaxiin léegi nag ñu daal di commencé nag bëgg ñaan yàlla ñu ngi dellu si kat ci yàlla kat ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi koy baab après nga dégg ñun la asa ah xëy na mën na am mën na am kat. rabbuna sunu borom an yubdilanaa mu soppil ñu ko xayran bu ko gën min ha ci tool bi ah mën na am day yàlla danañu jox lu gën tool bi nañu muñ nañu muñ yenn saa yi nga ñëw ñëw ndeysaan yore xaalis bu bari xaalis bu wadd nga ne ah, yàlla baax na mën na laa jox lu ko gën waaw moom muñal rek mën na laa jox lu ko gën yenn saa yi yu mel noonu am na ci yoo xam ni daanaka muñu ñàkk pexe la amoo ci mooy borom mbaam mi rek dégg nga asa xëy na rabbuna sunu borom an yubdalanaa mu soppal ñu xayran lu gën min haa ci tool bi ci sababu tuub bii ñuy tuub nañ leen tuub bu ñu tuubee jéggalu yàlla ci jëf ju ñaaw bi ñu def ci lu bon lu ñu def bàyyi gi ñu ko nar a bàyyi xam nga ne nañ bàyyi nañ ko waaye bu bu ñu ko tuuboon bi ko bàyyi de waaye nag yàlla moom noo mën a tuubee mu baal la wax dëgg yàlla. yàlla moom li feeg àdduna bi jëmul ci tukki nga xam ne benn fan ci des ak ay ay fan yu néew li feeg loolu amul moom boo tuwee mu jéggal la moom moo xam da ngaa def nga mu ngi dóor la ba at na te dee nga ñëw ni waa léegi maa ngi tuub yàlla moom dina saa boo ñëwee nee na kat ah ci sababus tuub gi ñu bëgg a tuub ak ci xam gi ñu xam ne suñu boromam moom lépp sababus xam gi xam ne suñu boromam man man man lépp ah ñoo ngi tuub ci loolu mën na am kat yàlla dina ñu jéggal yàlla may ñu lu gën tool bi innaa nekk ñun day inna nit ñun day ilaa rabbina jëm ci sunu borom raaxibuun ñu ngi dellu ci yàlla di ko sàkku xéewal di ko sàkku aw yiw di ko muslu ci mu mbugal ni inna ilallahi raaxibuun léegi nag yàlla mu ne kadalika naka noonu al adaabu mooy mbugal wala adaabul axirati mbugalum alaxira akbaru moo gën a màgg moo gën a rëy law kaanu su fekkoon nekk ngeen moo na di ko xam lii yàlla misaal nag xam nga lan la ci bëgg misaal misaal mi mooy lii ma leen bëgg a wax boo seetloo tool bi ñoom bi ñu demee ba ñàkk tool bi ba ñu wattu tool bi ba mu jeex tàkk xam nga mën nañoo amaat tool bi maanaam dem nañ ba yegg fekk tool ba raas ko ba jeex ñoom ñu daal di tuub jéggalu yàlla yaakaar nañ mën nañoo amaat lu mel ni tool bi mbaa lu ko gën ndax bu ñu tuubee jéggalu yàlla daal di dem liggéeyuwaat góorgóorluwaat mën nañoo am lu gën tool bi loolu nag yàlla mi ngi ci bëgg a wan ñi nga xam ne dañoo nekk ci ci ci safaanu maanaam kàccoor yi nekk ci yoonu bokkaale ci yoonu mooy yàlla ci lu baaxul nekkuñu ci lu baax nekkuñ ci lu jub yàlla mi ngi nag ñoom buñ demee ba yowmal qiyaam ba àgg fekk ca seen téere ji fekk ñu fa dara dara dara dara dara lu baax xam nga misaal bi benn la buñ demee ba yowmal qiyaam ca seen téere jëf fekk ñu dara dara dara dara dara lépp jeex na su ko defee nag foofa moom amatul ah yàlla ñu ngi jéggalu foofa amatu fa de àdduna moom boo demee ba tool bi ñu raas ko mën nga ne ah yàlla ñu ngi jéggalu waaye nag ñu ngi lay ñaan nga mayaat ñu beneen tool mayaat man naa am waaye nag bu doon yowmal xayaam la mayaat mënta am moom boo àggee yowmal xayaam fekk sa téere fekkoo fa dara lu baax moom c'est fini kon li mu doon a wax mooy fi ngeen nekk ci àdduna jaamu yàlla def leen lu baax dee leen dimbale ci li ngeen am dee leen sant yàlla dee leen màggal yàlla balaa ngeen dem ba yowmal qiyaam di ngeen fa fekk dara di fa doog a wax subhaana rabbina yowmal qiyaam moom sant yàlla daanaka jëriñitu fa dara julli jëriñitu fa dara woor jëriñitu fa dara saraxa jëriñitu fa dara joxe azaka jëriñitu fa dara waaye julli ak woor wax lu baax ak jàng alquran saraxe ak dimbale ak dox mbokk fii ci adduna lay jariñee su ko defee boo duggee biir bàmmeel yàlla dencal la ko bu ëllëgee yowmal qiyaam nga fekk ko fa yow yowma tajidu kullu si ma amilat mu ngi noonu waaye nag fii ci adduna nag man ngaa denc sab tool ñu jaar fa raas tool ba yàlla may la bu ko gën man ngaa denc sam xar ñu sàcc ko yàlla may la bu ko gën man ngaa denc sa alal ñu sàcc ko yàlla may lu ko gën mën nga am sa kër mu tàkk yàlla may lu ko gën waaye nag boo sàgganee ba dem yowmal qiyaam fekko fa dara dara dara kooku moom jeex de tàkk tàkk tàkk tàkk su ko defee rëcc moo fa des moo dax yàlla mu ni yawma tajri kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran wa maa amilat min suu'in lu ca des yàlla mu ni bi bu àggee fekk yowmal qiyaam lu ñaaw lu bon a bon a bon fekkul dara ci lu baax ci téeréem lan lay wax tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida su boobaa day bëgg naan ay waay yàlla tee nga maa puusal bis bi rek puusal ma ko bu baax ma mën a liggéeyaat and mayaat ma ab diggante ma jaamuwaat yàlla lu ma mën a lijjantiwaat su ko defee nag loola mënutul nekk ah kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yawmi yubaasuun dégg nga ko noonu la gaa ñu def sàggan rek sàggan du ñu liggéey duñ def lu baax duñ wax lu baax duñu saraka di dimbale duñ jàng alquran ba dee ñëw xatta ida jaa ahadahum mawt qaala rabbi rji'un ba dee ñëw rek ñu naan ko yàlla puusal ñu bis bi ñu liggéeyaat dara luñ mën a amaat yàlla may ñu ab diggante nangam ak sàngam déedéet fekk kat yàlla waxoon na ci alquran nee na walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha fekk nag yàlla mu ne du ma yeexe benn bakkan saa ab digam ñëwee rek day daal di jeex tàkk tàkk laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun benn heure benn minute bu ci yokku te du ci wàññiku kon li gën mooy fexe góorgóorlu liggéey def lu baax loolu la wolof njaay wax naan ku ñu dul xaar da xaare comme que malaaka mi su ñëwee du xaar xaar ko yow te ni koy xaaree mooy jëf ju baax wax ju baax jàng alquran tawxiid wéetal sa borom jaamu yàlla subhanahu wa taala noonu la ñuy xaaree malaaka mi dégg nga ko am noonu la ko borom téere ba waxee nee na fa ma subhanallah nu ko waxee wa ma lana nee bu ñu amee gan wa ma lahu qirran illa al arwaax na bu ñu amee gan gan goo xam ne mënuñu ko terale lu dul roox yow gan gi su ñëwee faaw nga teral ko te liñ koy terale mooy sag roox kon waajalal roox gi teg ah ful mujj وما له قرا illa al arwaax allah allah ibadallah nee na gan goo xam ne su ñëwee ruu rek moom mooy teraangaam kon defaral ruu gi ba mu jekk ba mu baax ba mu set toog xaar ko saa bu gan gi ñëwee rek jël ruu ci jàmm dem yoonam nga nekk ci jàmm waaye nag ruu gi waajaloo ko jaamuwoo ci yàlla defoo ci lu baax jàngoo ci alquran yéetaloo sa borom ah bu malaaka mi ñëwee jël fekk ruu tilim ñuul kukku boo àggee doo nekk ci jàmm problème am na a ah, bi noonu la tëddee di moo tax yàlla mu ne kadalika al adabu de loolu day am mbugal la wala adabul axirati mbugalam alaxira akbar moo gën a màgg de law kaanu yaabuna kon xam ngeen pare na ci yéefar yi ñi nga xam lu baax yàlla mu ne ah waaye nag inna lil muttaqin nee na waaye nag inna lil muttaqin a xamal ne ki ñi ragal yàlla inda rabbihim ca seen borom ñi ragal yàlla day ñeel na leen ci seen borom jannaati naim ajjanay xéewal ñu ragal yàlla defar seen ruux ba mu set di jaamu yàlla di dimbalee di woor di wéetal seen borom di wattandiku bàkkaar ak bokkaale ñooñu day am nañu ajjanay naim ëllëg ci seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna alladina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan nee na ñu gëm yàlla gëm yowmal qiyaam di jëf-jëf yu baax am nañu ajanay firdaws ci wàccuwaay wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat yàlla mu ni doomu aadama day perte na adduna ak alaxira waaye ba des ñi nga xam ni gëm nañu yàlla gëm yowmal qiyaam di jëf-jëf ju baax dégg nga ko kon yàlla mu ni ñu ragal yàlla am nañu àjjana ju kawe muy àjjana naim inna lil muttaqina testa amayata inna lil muttaqina mafazan nee na ñu ragal yàlla am na ak texe ëllëg yowm al qiyaama dégg nga am nañu ak texe am nañu àjjana naim yàlla nag mu ni a ah, afa najaalu lmuslimina afa ndax dañu def ñun yàlla almuslimiina jullit ñi ñi gëm yàlla kal mujrimiina ñu mel ne que kàccoor yi xam nga mën ngaa gis ku gëmul yàlla maanaam léegoo la nga gis ñu gëmul yàlla am ci àdduna ay kër yu rafet ay oto yu baax yow nga dëkk ci daamu yàlla bis bu jot su ba ngoon di woor di saraxe di jàng alquran te yow daanaka sa kër ga tubaarkàlla daanaka bu ngelawee nga gis zeng yi bëgg a naaw sàkkar ya tubaarkàlla te kee gëmul yàlla du julli du wor def dara te moom kër gu baax la yor oto bu baax la yor nga ne waaw ñii de raw nañu ñii ñii raw nañu ñoom nag yaakaar ne bu yowmal qiyaama noonu la ñu melaat dañu tolloo foofa yàlla mu ñu déedéet afa najaalul muslimin ah da ngeen yaakaar ne dañu def jullit ñu ragal yàlla ñii kal mujrimina ñu mel ne que kàccoor yu ragalut yàlla ci àdduna déedéet si yowmal qiyaama ñi kàccoor ñi sawara lañ jëm ci mbugalum seen borom ci géppig seen borom waaye ñi ragal yàlla baaxoon dañu dem àjjana ju neex lool inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu naim yàlla mu ni loolu yàlla nag mu ni ah maalakum waaye yéen ana lu leen dal kay fatax ku moon naka ngeen di àttee lu mel nii waaw naka ngeen gisee kee gëmut yàlla am xéewal adduna lépp neex ci moom nga bëgg a àtte ne rek bu yowmal mooy rawaat waa ji yow koy dégg yenn saa yi nga di ah ñii de ni ñu rawee ci àdduna noonu la ñu rawee yawmal qiyaam parce que ñoom daal ñoo yor oto yu baax yi ñoo defar frigo yi yaa ngi dégg yor nañ alal di ko tuur nit ñi ngeen yaakaar ni daal ñoom daal ni ñu rawee ci àdduna la ñu rawee yawmal qiyaam yàlla mu ne ana lu leen dal nak ngeen mën a àtte loolu te yéen ngeen nekk ci li ma neex ci jaamu yàlla ci sàkku tuyaaba fu ngeen toll ci dimbale sama jaam ñu ñàkk ñi ba noppi gëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam gëm tawxid di wéetal yàlla fu ngeen toll donte àdduna na xaw naa mett ci yéen waa yow ma moom du ngeen toll ak ñuy mukk mukk mukk mukk mukk leen di romb yéen leen di raw fopp ndax ñun ci sawar su mett la jëm ngeen jëm ci àjjana yu neex nee lakum kayfa taxkumuun ah yàlla mu ne am lakum waaw wala yéen da ngeen a am kitaabun ab téere boo xam ne tadrisuuna da ngeen di jàng fii ci téere ba ci loo xam ne yéefar ak jullit ñi ñoo war a yem ndax da ngeen ko am inna lakum ndax yéen da ngeen a am fii ci téere ba lama taxayaruun loo xam ne kat da leen cee neex di ca da ngeen cee bànneexu ngeen tànn ko jël ko ni noonu lay demee ndax yéen da ngeen am loolu loolu da ngeen ko am xam nga yenn saa yi nga dégg benn waaye taxaw fee naan la ah julli sàngam a ngi nii julli gi ku ko def da nga dem àjjana sa baay dem àjjana sa yaay dem àjjana sa maam dem àjjana say mbokk dem àjjana ab julli la nee nañ nga def ñu la baat bi kat ku ko wax da dem àjjana say maam dem àjjana say mbokk dem àjjana baat sàngam bi ku ko dégg ci sa nopp sa waram araam na sawara palaas sàngam ku fa dem say mbokk yépp dem nañ àjjana bant sàngam ku ko raay yow dem nga àjjana sa yaram araam na sawara xeer sàngam ku ko raay yenn saa yi benn waaye taxaw ni sama jëmm ji ko ko gis sama jëmm ji ko ko gis tam àjjana am déedéet du ngeen koy dégg waaw yow moom dogal naa la nangam ku la gis sa yaram araam sawara yaa ngi dégg wax bi moom texe nga yaag say njaboot yaag say mbokk kenn du dem sawara ah yàlla mu ni waaw waaw téere boobu fa ko jële loolu fu mu ne inna lakum dégg nga am lakum nu mu ko waxee am lakum kitaabun fii tadrusuna waaw yéen da ngeen am téere boo xam ne dañ caa bind ko gis di dem àjjana garab sàngam ku fa àgg sa yaram aram la sawara buñ demee ca dëkk sàngam ñu ne tudd sangoo ah sa yaram sawara teen sàngam ku ca naan sa yaram aram sawara fu ngeen ko gisee yàlla ne ana la fu yàlla nag laaj na ni fu bu amee ci alxuraan indi leen yàlla wax bu amee ci benn téere ci téere yi indi bu amee ci waxu yonent bi indi leen ah yàlla nag mu ne ko yonent bi léegi laajal ma gaay salhum salhum laaj leen ayyuhum bi dalika zaim laaj leen ndax ñoom dañoo am jenn kilifa goo xam ne moom mën naa jël ndogal ci kanamu yàlla bu yawmal qiyaama laaj leen ndax dañoo am benn kilifa boo xam ne am na sañ-sañ ci yàlla bu ñëwee foqati loxo yàlla salhum bi dalika zaim waaw wala am lahum wala ñoom yàlla moo ne ko laajal laajal gaa ñi de am lahum wala ñoom dañoo am shurakaa'u ay ay bokkaale maanaam dañoo am yeneen yàlla yoo xam ne nekk nañ fii ci man te man yëguma ko ah wax dañ ko am waaw suñ ko amee fal yatu nañu andi bi shurakaa'ihim ci seen yàlla yooyu ñuy bokkaale ak ñeneen ñoo xam ne moom nee nañ leen a garantir àjjana ko indi in kaanu in kaanu su fekkee nekk dañ saadiqina di wax dëgg yàlla mu ne ah ñoom su fekkee dañoo am kenn ku leen garantir àjjana mun nañ ko indi su fekkee dafa dañoo am kenn ku leen defa ne leen sawara du ndax man nañ ñëw ah yàlla wax de te dëgg yàlla moom dañ koy dégg ci ci suñu réew mi moom fii nag Sénégal lañ dëkk dëkkuñu fenn fu wax dëgg yàlla noonu demee ndax yéen saa nga dégg dégg dégg dama la siraat moom siraat moom ku ma doo fa jaar dama koy dammate siraat ku ma doo fa jaar moom ah ana ah, wax dëgg si yàlla dañ koy dégg te amul ci alxuraan yàlla mu ne salihim laaj leen bu amee mi ngi koy indi alxuraan nag moom wax dëgg yàlla moom boo ko jàngee ba mu doo ko gis kenn ku may kattanu mu mën a dammate siraat ba kenn du fa jaar ndax kat yàlla ko wax de wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiyan yàlla mu ne amul kenn kenn kenn koo xam ne bind naa ko muy doomu aadama te du jaar ci siraat amul léegi bu amee keneen ku ñëw ñu siraat ku ma gëm du fa jaar a ah, waxe suñu borom day teggiku affaire bi noonu la tuddee yàlla nag mu ne yow yow ma bés ba nga xam ni yukk sa yukk shafu yukk shafu dana feeñal an saaqin ci ab yeel yowmal qiyaam bu jotee yàlla day ñëw ànd ak da mer bu ko defee nag day ñëw wane ab yeelam xaw ma nag ni mu koy defee xaw ma day wokk xaw ma nan yàlla daal moo wax nee na danaa wane sabab yeel lu mel noonu nag bu fa nekk naan nii la koy defee nee la koy defee xamoo ko ndax yàlla am nay loxo waaye xamoo ñaata loxo la am xamoo ñaata baaraam ndax waxu ko fenn yàlla am nay bët di gis ah xamoo ñaata bët la am nay nopp di dégg ñaata nopp la nu nopp yu mel yàlla day wane ab yeelam ah nu mu koy wanee xamuñu ko xamuñ yeelu bi yàlla nu mel kon daal neel yàlla dana wane ab yeelam ci mer xam nga ñeen saa ñun doomu aadama ci jëmm ju xeebu ji rek suñ meree da ngay gis ñu ñëw naan nii gis nga mën nga ko misaale noonu su ko defee nag yàlla daal di génne ab yeelam bu ko defee nag wayu daaw ne mu daal di woote ila sujudi ci sujud bu yàlla ñëwee nag daal di def lii aca sujud leen xam nga yowmul xiyaam suñu borom day wane boppam di day ñëw nii limanil mulkul yawm waaw yéen ñu doon wax ci àdduna naan man maay seen borom maa leen moom maa leen bind maa leen di yóbbu àjjana maa leen lii kaay leen ana ngeen yàlla da koy wax li ma leen mulkul yawm tey kan moo fi kan moo moom njër gi fii yawmal qiyaam bi ñu taxaw ku ko moom ana kan moo fi moom yàlla da koy wax de yàlla muy lillahi alwaahidi alqahaar yàlla kese kese kese moo ko moom yàlla waxal boppam ba tey mu demaat ci beneen saar ni ni ni ni lan al mulku yawma idin lillahi yaxkumu baynahum tey jii yàlla moo fi moom mooy atte wal amru yawma idin lillah tey jii kat mbir yépp yàllaa ko moom su ko defee nag yàlla mu ni asa sujjóot leen fekk mi yàlla mbaa ngi génn nee na ne nekkoon ci àdduna te mënoon a sujjóot yépp daan sujjóotal yàlla ci dëgg nee na dañu ñëw sujjóotal yàlla maanaam ñu doon julli ci àdduna di sujjóotal yàlla ci dëgg saa bu ñu noo dañu dem julli ci saa bu waxtu jotee ñu dem julli ji ba dañuy jullil yàlla ci dëgg nee na dañu ñëw sujjóot ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala waaye nag ñi nga xam ne daawuñu julli daawuñu sujjóotal yàlla bu yàlla wootee ñu lànk wala boobu buñ daan julli gi dañu ngistal nee na ñoom kat fala yastatiuuna du ñu mën a sujjóot ndeysaan nee na buñ demee ba bëgg a sujjóot rek seen digg gannaaw gi day mel ne ab bant la ci yàlla roof duñ mën a sëgg nga suñu loxo bii tax mu mën a def nii bu ci yàlla roofoonu bant duñ ko mën a sëggal boo demee ci hôpital yi ñu tabax ko rek doo ko mën a leb waaye kuñ tabaxoon ak ndiggam ak gannaawam lépp doo mën a sëggati waaye nag su boobaa bu yàlla ne sujjóot leen ña nga xam ne daawuñu sujjóotal yàlla doonoon ay naafeq yëpp doonoon ay yàlla day roof ci seen gannaaw gi ab bant boo xam ne duñ mën a sëgg su defee rek ñu baaxoon ñi ñëpp dañuy sujjóotal yàlla ñëpp sujjóot allahu akbar su ko defee nag ñoo nga xam ne sujjóotul gëmuñ woon yàlla yàlla mu ne xaashiatan nga gis leen ñu ñu rus ñu torox absaarahum seen i bët nga gis ñuy lewtal bët commencé di sëgg duñ bëgg a xool gaañu naan nii di roog di nii xam nga dem nit ki def njombe ñu woo ko mu ñëw ci kanamu mbooloo mi naan nii yaa ngi gis ñu ci bari boo leen gisoon tey di leen jàppee tribunal ba takk leen di leen di leen ñu leen wane dañaan nii ñii lañu def duñ bëgg a xool yàlla mu ne yowmal qiyaam nag ñi baaxul woon ñi jaamul woon yàlla duñ ñëw yowmal qiyaam ñii lañu def nii duñ duñ mën a sigi xaashiatan absaaruhum ñu torox torox lu niis di lewatal bët yàlla mu ne nag tarhaquhum mu muur leen zillatun ak torox tànge nee na seen yaram yépp nag ak rus lay doon dañuy rusu rusu rusu rusu ba mel ne ii comme ñu koy waxee ah lu tax wa qad kaanu ñoom day nekkoon nañ yu daaw na ñu di leen woo ila sujuudi ci sujood daan la leen woo ci sujood nodd kat daan wax hayya ala salaa hayya ala salaa noddukat bi daan na ko wax waxum te ñoom saalimoona ñu mucc feebaruñ daagatu leen ñu lànk noddukat bi daan na wax hayya ala alfalaax hayya ala alfalaax ñu lànk daal di tëdd nelaw te dara jotu leen ñu benn wér amuñu benn problème noddukat bi daan na wax alsalaatu xayru min annawm ñu lànk bañ a bañ a jóg kon tey jii nag duñ ñëw ba yowmal qiyaam naan ñu ngi sujjóot kon misaalu tool baa ngi nii xam nga tool bi bañ ko nee nañ mën na am yàlla mayaat ñu ko waaye gis nañu kàccoon bi dañ demee yowmal qiyaam yàlla na sujjóot leen xëy na buñ sujjóotoon yàlla baal leen waaye sujjóot mënatul lekk parce que c'est fini jeex na tàkk kon lu waay di fàggu na ko fàggoo fii ci adduna ndax àdduna mooy barab bi ñu liggéeyee yowmal qiyaam mooy barab bi ñu fayee salaire yi kon bokk yi nu yem foofu insha allah ci laay ñeen fukk ak ñett bu subaa xam naa li de ci saar yu bari waaye ñu mottale yàlla nañu yàlla dimbalil boppam yàlla nañu yàlla boole ci nga xam ne ba yowmal qiyaamee bu yàlla nee sujjóot leen daañ mën a sujjóot daañ mën a sujjóot yàlla nañu yàlla boole ci nga xam ne bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ummati ummati ñu bokk ci ñu njëkk wuy ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom dem aljanna yàlla nañ ci bokk yàlla nañu yàlla defal jàmmi adduna ak jàmm yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu